ñun ba Amérique dañ day jëlee ñu ngi am Washington ñu ngi fa am euh, week bu ñu day def ñu ngi ko day ñu day jëlee musiciens Gambie fii dañoo jëlee musiciens Amérique fii indi ko ndegam ñun waa ñun ñun nekkul fii ñoo ko mun waxuma la ñu fi nekk waaw Gambian association ba fa nekk every every every bu ñu amee every year bu ñu amee Omar Diak la jële fii yóbbu ko foofu leen mu defaral ñu ko oh, waaw every year every year ñëw bu fa simba yéeg ñëpp te ñëpp ñu ngay jóge Afrique fii ñëw foofu tokof ñu nekk fii nag lu leen ko teree mun ñu góorgóorlu parce que ndimbal mm-hmm. ah foog nga foog ñu dimbalante nit ki jóg rek taxaw dem foog ñu am pour dimbalante te bu ñu mm-hmm. dimbalante rek ñu kontaan mm-hmm. because ñu nga maa ngee seen fii xale laab time boobu leen waaye femme mbundi réew yëpp dañ leen daan jël ah te liñ mun moom la waa fii mun si waa fii lañ fii lañ jógee so definitely mun nañoo def noonu tam féemasloo suñu gaay yi ba nga xam ne bu mhm. jóg rek réew bu jóg rek jël leen pour daal laa li ma wax daal nañ génn daal nañ génn jàppale xale bi mhm. kii xale la dafa raam mhm. te buñ jàppee si loxoom bi dina dina dina dinañ ko teete mu taxaw nañ leen góor góoru rek di ñaan yàlla rek ñu commencé ko bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilahi rabil alamina hmm. jërëjëf yaa booy sa kàddu rafet na foog naa sàmba dañ fi am keneen ko war a ñëw waaw dañ fi am green amazon waaw suppee lañu tamit ah, ok ñoom tamit dañu ci lu gaaw rek eh, ñu ñëw sànni si kàddu su ko defee ñu daal di ci waxtaan bi waaw awa eh, eh, dégguma sa tamit maa mhm. eh, ngi gërëm di ambassadeur of Qatar Ansoumana Diémé mhm. wax naa ak moom mu ne bu dee sago am la mu teew lifin bi waaye yàlla dogale na ko nii ñu ngi koy di koy sant di koy ñaanal jaama rek foofu incha allah ok léegi am nañ fi keneen kan nañ fi am ni sis na nga def waxtaan nuy wante la waa Gambie te wax ñu naka nga parele bés bi yow ak la mooy sa teewaay si bés bi Awa Joob kontaan naa trop am la fii man may Mama Jaajo président Green Amazon Association suñu waxee green green is nature ñun dañ dee involve su lu nekk make sure ne Gambie mu dem ci kanam moo tax ñun saa yu nekk fournisseurs ñu ngi sol green yenn politician boo dañoo mixoon ne green mu saaf si country bi bring agriculture food stabilities tey dama toog fii pare si programme bi nga xamante sama Samba mooy lañ siidi yaame bi nga xamante ne daf ko entitled Kékendoo suñu waxee Kékendoo aw foog naa ne jigéen ñi tamit dañoo nekk jigéen ñi Kékendoo si bés bi ndax mm-hmm. jigéen ñi ñoo faa bëri mm-hmm. moo tax dama kontaan trop ñëw toog fii wax si kii si cadre yi nga xamante ne pour youth si yëpp génn si ñi teewoo si programme yi Sambaba ndax suñu waxee lëkkaloo bi africain lëkkaloo bi dem na waaye man dam dee woon ne am nañ lëkkaloo bi hmm. ndax Sambaba dafaa joxe message si moo tax man su nekk rek su ma dégloo mis bi damay bégg dafaa joxe message si Gambien si pour Gambien mën a am peace and stability pour président African country yëpp ñu mun a nekk benn ñu mun a développer country bi hmm. artistes yu bëri daal moo tax man damay bégg pour nit ñëpp génn si ñu toog déglu samba ba lu moo wéy mu dugg su suñ biir si suñ système bi ndax affaire bi dafa neex. waaw hmm. hmm. ah, samba daal foog naa ne euh, sa gars yi pare nañ. paral nañ bés bi yow sa bopp paral nga bés bi kon li si des rek mooy comme ni nga ko waxee rek na gaa yëpp génn si support euh, Samba Ba support tamit ak keneen ak keneen ki nga xam ne dina def ay loncinam si kanam waaye fi mu nekk bu taxaw nii mooy bu sàmba Ba mhm. ñuy ñaax ñëpp rek ñu ñëw seetaan si support suñ Gambien brother because Gambie su jëmee si kanam pour ñun ñëpp la li nga fi wax neex na ma am na solo torop nga ne ñàkk Afrique ñàkk na lokidu bi waaye dafa mel ni beneen lokidu bi sofees na Gambia because Samba li ma doon rek mooy euh, moom rhythm bi mu ñëwee euh, most time reggae rhythm bi la ñëwee te xam nañ ne Rocky dubi bi loolu Lucky euh, Dube bi loolu la daan def te Samba Ba ñu bari appreciate nañ music am because um, flavor bu moo joxee daf tee baax nit de change moom dafa ñëwee own style am euh, loolu rek laa ko ñaax man from my own perspective mu jàppa level boobu noonu because man it yàgg naa si affaire music xam naa ci tuuti so mu jàppa si level boobu noonu dina baax incha allah dina baax affaire yi jom la rek ak féet ak gom te gis naa ne ni mu taxawee nii nduru na ku ku gom lu moo def ku pare la mhm. te yéen itamit am ngeen noo leen def si bés bi waaw xam nga ni soo waxee rek danga dee yaakamti waaw waaye bu ñëw nit ki ñu ñëw di génn si ci wax nit ñi ne yow last friday samba ba programme bi nii bugguñ ko mm. dañ bugg ñëpp su nekk campagne nekk sax ñëpp toog di ko waxantoo di ko waxantoo nekk benn kaddu <laughs> di la jox ñu bëgguñu loolu ñun yëpp ñooy toog si bantabaa bi si groupe bi wakki wafi wafi bés bi ndax dan nar naa ne awa waaw ndax ñun dañoo kontaan si sama ba ñun lu ñu ne si moom rek message bu ñoo joxee si Gambien si moo tax ñu saa su dañ koo toppa ñu ne mhm. si yëpp génn si ndax bés bi lu lu war lu nar a neex la lu war a saf la kaani dafa saf bem ne ndax bis dam faa nekka mhm. loolu la waaw ñu waaw miss dafa am. dafa am. ah miss competition. ma ne peace dafa am. peace ok waaw peace moom. moo am solo la waaw. dafa am mhm. ndax moom musical bi mooy loolu rek. waaw léegi waxtaan nañ fi lu yaaga yaaga waaye waxuñ ticket si ñaata la ak time bi because foog naa ne loolu tamit am na solo léegi nettali si ni boobu. waaw ticket bi 200 si la di gate di time is 8 pm ba pare dinañ am yeneen artiste ñu ngi wax ak ñoom. ñoom Sejo Band fas yeneen ak yeneen Gambian artist mm-hmm. by the also we also I thank all my musician uh, ñoo xam ne suma all my musician I cannot name them but all of them definitely I just want to tell them I love them and then I know they are ready for the show so Gambia ñu ngi ñëpp ñu ñëw teew ñu jàppale ñu seen is believing man du ma wax wax yu bëri. waaye ku ñëw rek waaw incha allah foog naa ne di kontaan si kattanu yàlla di kontaan man gëm naa loolu incha allah rabbi. waaw jeex na kon ñu ngi wax ne time bi daanaka jeex na tak tak tak tak ehm, lii lañ leen fi amaloon waxtaan tey Samba Ba dégg ngeen ko si làmmiñi boppam mu ne képp ku ñëw teewee si bés bi rek di nga kontaan ñu ne tungu na di teew ñuy nataal te Samba Ba moo fi toog waxal ko boppam kon nag pare na kon liñ li mooy seen support wax nañ ko Cordoba Beach Hotel ba pare time bi is 8 pm kon nag uh, na ñëpp génn si mag ndaw xalel màggati sax bu la neexee ñu dem because Samba ba dafa entertain ñëpp kon nag uh, jërë ngeen jëf ba beneen ba Thursday dinañ fi nekkaat pour beneen discussion. Thank you. Música